yow kii di Habib sama góor. waa ku bëgg. ay wóor Habib nam naa. gis bàyyi nga ma de. si loolu nag. waaye yow Habib bii man mii doo ko jox. ah ñu ma kii dafa yor a yor ba liiw ma. am jox ma yor ma ma yor li ma ko. woo ko. dama ragal laa illah lii de waxatu bu ànd ak geesu tubaab. naa ko lekk lekk lekk lekk bu buy kii saar sax du ko yóbbaale. tubaab. Il y a EG retirer de l'argent là, mais ils ont bloqué mon compte. Mhm. J'ai besoin de 5 000. francs Oui. Ouais. Oui. Oh, merci, t'es adorable. Mais tu. veux me passer le sac aussi Comme ça, je mettrai l'argent dedans. oh, merci. C'est quoi ton téléphone C'est quelle marque euh, iPhone. iPhone mm -hmm. Ah, il faut changer ça aussi, toi aussi. Ah, hein. ah, il y a des iPhones plus récents Oui. Je le prends. Mm -hmm. Ok, super. Euh, je, je reviens à tout à l'heure. Oui, oui. Ok. tekki naa li faa ko war a waxee xaw ma ñëw léegi samay xarit kaa leen lii ah Tandis. Et je vais tout prix. Ben non, on fait pas. Bon, regarde. Tu prends le sac, moi je prends le reste. C'est bon. Je sais pas ça. Ah. Je prends l'iPhone, le, le, je prends le sac et les 5000. Ah, voilà. Ah, ah. Yo tamit, dëkk bi dafa métti de. Même pour ñun tubaab yi dafa métti. Tu jëlee sac waay. Jëlal. Baax na. tubaab bi lii de mooy tubaab ancien nag trompeur hee man fu ma jëm tubaab bi mooy mbaam laa ilaaha illallaah